di ñëw sunu ay Aïda boo jóge noonu di ñëw moom tam gis nga ko noonu euh, jóge ci biir bokk ci délégation yi gis nga ko noonu moom it muy jàmbaar moom ak wér gi sax demeewut noonu waaye jàmbaar la ñoo xam ne ñii ay yaay daara ñii ay yaay lan yoo xam ni ay yaay yu yu yu yu bëgg seen réew lan gis nga ko noonu nañ ko ñaan moom tam yàlla may ko dolli ko gën ko dolli wér ndax maman Aïda Mbodj ci lu baax maa ngi si maman dem Mbodj ma ko mënoon a jege nag balaa ko ñaari kàddu danam solo. Malick dama Malick bëggoon ñu ko jëm. moom it niki rek la fi jóge. kon ñi nga xam ne euh, ñoo nekk noonu. wàccal rek euh, ma jege ji euh, ma ay dem Mbodj. xam ne tey président na ko euh, waaw président yàlla moo ko ci suturaal waxtu woo xamee ne ñëw na tuuba dafay nekk ñëw bu symbolique te sëñ Bass Abdou wax na ko ndaxte taw bi mu tombeel te ba mu ñëwee itam bu njëkk mu tombeek taw ba sëriñ bi di wuti la muy wuti mu tombeek mu taw waaye li ñu ci gën a ràññee mooy cofeel gi nga xam ne xarif bi am na ko ci moom muy cofeel gu am solo ndax gis na ko ak yaram ak tegginam mais nee na li ko gën a frappé ci moom mooy diine ji ak xam loolu mooy kilifteef loolu nag ku nekkul président sax soo ko amee da ngay soppalu waxuma laay nag un président de la république te bu xasee ba dugg Touba dafay wane ni moom taalibe la doom la loolu la fi nekke ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko indi ñëw at yu baree bare ñuy gërëm sëriñ bi di ko sant li mu wax moo ci nekk ku mu yëlif rek jox na la ndigal li nga xam ne moom nga war a def jëm ci màggal gi jëm ko jëm andi la ko ci Touba ku mu yëlif rek lu ci nekk rek ñun ñi avant màggal gi financé nañu deux cent quatre-vingt-quatorze projets deux cent soixante-dix si ñoo génn pour une valeur de deux cent ndax bu nanoo xam ndax mook son excellence ak sëriñ bi waxtaan nañ ci wàllu assainissement ndax gis nañ ni ndox mi xam na fi xam na ministre de l'assainissement jëkk na fee ñëw te la nga xam ne sëñ bi santaane na ko yëpp def na ko waaye dafa am leneen loo xam ne mooy yéene président ci Touba muy ndox mi te xam na ni mu koy defee xam na fa mu koy jëlee parce que yemul ci Touba mais laawaale na ci sax région de Diourbel yëpp mais ay Mbour ak Thiès yëpp daf leen ci boole kon nag président am na lu mu lu mu lu mu yéene ci Touba te loolu mun nañ ci am yaakaar. jërëjëf yaay booy li ci jàngaat mooy sonn si la saa bu se jàngaat ak ci moom ay yar gi ak teggin gi ak waaw yar beeg teggin gi ak gi te loolu xëy na moo justifié cofeel gi nga xam ne Cheikh Mountakha am na ko ci euh, sëñ sëñ Mountakha am na ko ci moom. yàlla yàlla guddal sa fan. jërëjëf dalal son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye sama xarit bi sëñ Baara Ndiaye Baara Baara Dolli moom tam muy kilifa maa ngi moom soo ko mënoon a jege nag dana baax. photo bi day dem de Fadel. Fadel. photo bi day dem de Fadel. day dem de.

Malik oto boobu ngay jël daal mooy waaw mais sànq géré ko. ah sànq waaw wax dëgg yàlla kontaan naa ci moom. man mooy baax man mooy baax. parce que après nii la ñuy jëlee quoi. Ah. waaye sobre el sur y sobre el dugal jël ko dafa ndànk sëñ bi

non xa naa ne fii ci mosquée bi xaw xaw ma ndax dañuy dugg waaw wala duñu bàq bi grande mosquée de Touba nga xam ne ñooy cortège bi ngir ci nga xam ne ci oto yi ngir nag mën a dem si la grande mosquée maa ngi téye loolu garaaw jëm ci nga xam ne mooy euh, mooy couverture euh, générale les grands événements di leen euh, ci topp li nga xam ne mooy cette TV ci les grands rendez-vous kon bu ko defee li nga xam ne mooy cette TV mooy les grands rendez-vous yi kon nag